man maa ngi tudd Pape Diouf nekk délégué de quartier bu Fayu 1 ma ñëwoon fii tey ndax sama seet euh, Seydou Diop dafa ñëwoon tey sama kër ñu am lu ñu doon toppatoo ci jumaa ji nga xam moo polariser ñaari quartier yi bu muy ñëw mu romb action wu waa koñ bi alors mu wax ma ko ni ma li ma gis ça mérite que ñu dem xool lu mu demee bi ñu ñëwee effectivement nous avons eu la surprise fekk ay jeunes di liggéey di def euh, donc euh, lu ñuy wax participation citoyenne ñu rafetlu ko lool loolu moo tax ñu ñëw fii euh, xaar ba presse bi ñëw ndax lii ñuy wax ni waxoon nañ ko xale yi ci suba pour encourager leen rafetlu action bi grosso modo loolu moo taxoon ñu ñëwoon fi tey pour vraiment sant leen gërëm leen encourager ak action bi euh, di ñaan euh, yeneen population yi nekk ci yeneen euh, yeneen rue yi ñoom it ñu def la même chose parce que rue bi moom moo nekk diggante ñaari quartier yi loolu moo tax jeunes yi nga xam ñoo dëkk ci ñaari quartier yi séq ko ñoom ñoo def liggéey bi mais sous la houlette de ma fille Mama Diaw waaw moo tax moom tam ñu ngi koy gërëm bu baax vraiment di encouragé action bi baax a baax a baax non parce que comme ñun ñoo ngi doog a yëkk action bi li euh, li wér ci wóor mooy comme ñun ñoo fi toogal maire man ma toogal fii maire Pape Diop c'est les toogal euh, maire Sow c'est sûr que maire yi dinañ leen wax les maire seront informés de de de l'initiative te certainement parce que mairie tamit ñoom rek loolu rek la ñuy wut bu gisee ñoo xam ne ña nekk di jàpp di dimbale seen koñ ñoom dañ ciy jàpp certainement donc suñ leen informé suñuy defaat yu mel ni action bu mel ni ci koñ bi dinañ ci jàpp. non xam nga euh, déjà ñun toujours dañuy. imaam yi dañ ñuy wax importance bi dind ay pakk ak ay salte am ci mbedd maanaam nga dindi nga fekk mbedd dind pakk yi fa nekk dind la fa mën a gaañ nit dind la fa mën a gàllankoor nit ñi loolu yiw bi ci am kenn xamul nu toll moo tax tey bi ñu ñëwee fekk mbedd mi niñ ko gisee woon démb rek tey mu mel nii satisfaction bu rëy lañ ci am nii de poul yi euh, bouché nañ leen ba pare euh, daal di fi def suuf vraiment kontaan nañu trop te xam naa ni ñi fiy jaar tamit ku fi jaaroon démb rek soo fi jaaree tey di nga gis différence bi. waaw mooy li ma leen waxoon ci suba rek ni leen euh, amul benn koñ boo xam ni. état wala mairie dina ñëw defaral leen seen koñ dañ leen di jàppale rek mais jeunes yi jeunes yi dëkk ci koñ ñoom ñoo war defar seen koñ waa koñ bi ñoo war a defar seen koñ euh, autorité étatique yi wala euh, communal yi dañ cee war a jàpp rek dimbale leen mais jeunes yi ñoom ñoo war a defar seen seen seen koñ donc euh, ñu leen di encourager bu baax leen wax ni Euh, def nañu seen warugar mais euh, du tee dinañ leen encourager ndax euh, participation citoyenne ñëpp a ko war a comprendre léegi te mel na ni ñoom comprendre nañ ko participation citoyenne dama wax ni ñëpp ko war a comprendre léegi te mel na ni jeunes yi dëkk fii ak responsable yi fi dëkk yi nga xam ni ñoo leen jàppale muy kilifa yi ndëkk ci kër yi ak yooyu ci koñ bi ñooñu comprendre nañu loolu. waaw c'est-à-dire euh, fi mu nekk nii mbedd mi bu fekkoon ni euh, bu fekkoon ni reboisé nañ ko dina gën a rafet parce que kii avenue bu yaatu la avenue bu yaatu la su fekkee ni reboisé nañ ko dina gën a rafet. bon su fekkee ni tamit euh, ci cadre Promoville bi goudronné nañ ko dina gën a baax lampe làmp euh, solaire yi aussi bu fi ñëwee day gën a baax kon yooyu yëpp dinañ ko jottali autorité yi pour que comme ñun ñoo ngi def effort pour defar ñoom it ñu fekk si ñu loolu la euh, depuis bi Covid bi amee. maire Talla Sylla bu dee woote daf koy woote ak intelligence c'est-à-dire du ñu woo délégué de quartier yëpp ñu groupé foofu day woo eh, ñenn ñi ñu dem mais bu ñu paree au niveau de notre euh, président le doyen euh, Souleymane Kanté renseignement yi am yëpp bu ñu demee moom moo ñu koy jox après bu ñuy demee tam même ñi demuloon ils seront au courant donc certainement dina ñu woo pour informer ñu ci loolu. mais li ma li ñu kii euh, li ñu mën a wax daal autorités yi waxoon na nañu ni ne sunu wàll dina ñëw ci euh, euh, làmp solaire yooyu waaw. salaamaaleykum maa ngi tudd madame Touré ñu gën maa xam ci Mama jaw dëkk fii si fayu maa ngi am nag mbégte tey jàkkaarloog ak yéen ci fësal suñu activité bi ñu doon def tey jii. muy journée set setal bi ñu doon def fii si koñ bi defaale en même temps safar au nom de Euh, de tous les habitants de Fayou et de Sud Stade balaa may tàmbali nag damay nuyu suñu kilifa bi nekk sama wet muy suñu chef de quartier tonton Diouf tonton merci ci teewaay bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax jël tamit nuyoo bi teg ko ci sa loxo pour nga joxuñu ko tonton Sélé muy chef de quartier Sud Stade moom tamit ñëw neef ak imam yi sama tey ñëw ngeen fii ànd ak seen délégation ànd ak imaam yi defal ñu ñaan te alhamdulilah la ñu wax ndax ñaan yi nangu na ndax li ñu bëggoon pratiquement am nañ ko duñ na sax matal nañu lépp mais am nañu au moins liñ ci yaakaaroon jot nañ ko cee gis muy mbedd mu set ndaxte ñun ñu dëkk fii fayu on a longuement souffert ci lu mel nii man rek mine de def naa 13 ans si koñ bi mais lii ñu ko fi soog a am bu taan taw taxi boo wax fayu mun la dew ma ba léegi sax moo fi ne ndax suñu mbedd bi yàqu na gisuñu nag benn autorité buñ ci jàppale te olof Ndiaye dafa nag am na loo xam ne mbéjum kanam borom a koy fajal boppam ñu ne nag nañ jóge suñu bopp ñu ñun jeune de fayu ak sud stade defar suñu bopp suñu koñ idée bi rek laa ci am mais le reste ñii sama gannaaw ñoo ko def muy mes frères macha allah ma leen ci sant bu baax a baax ndaxte dañoo toog xalaat ko xam ne fii li fi nekkoon ndax yooyu sonal nañu ñu gis ngeen ñax mi sécurité bi amu fi amuñu lumière amuñu dara te am na loo xam ne nag il faut ñu xam ne fayu ak sud stade Thiès la bokk. on a longuement souffert de cette situation et vraiment ça, ça en est assez c'est de cœur nag parce que fii li fi nekk ci nit macha allah bari na tonton du ma démentir ndax mooy chef de quartier bi mais amul benn autorité bu ñu fekk si léegi bi ci interview maa ngi koy dégg muy wax les maires j'ai tapé à toutes les mhm. ñu ngi may gis le maire Pape Diop woo naa ko ñëwul le maire Aliou Sow woo ko réagirul yaa que le maire Thalissa la ki yaa répondu à moo ñu may suuf si pratiquement ak logistique bi fi nekk yëpp ci ñoom la jóge te du dëgg du yoon ñoom lii ñuy def ñoom lañ ko defal kon na suñ leen di woo ci lu mel war a accompagner ndax fayu li li euh, tonton wax léegi lampadaire solaire wax dafay am ndax fii dafa lëndëm amuñu éclairage public amuñu yoon amuñu sécurité même un espace vert pour nos enfants ou bien non nos parents amu fi bu ngoon jotee paaye bu ñu jullee pare bëgg wala fajar fu ñu toog wér sax amu fi xale amuñu fu mu fawee loolu nag war naa am ci fayu li faut nag ñu wax nit ñu dégg ko xam ne fayu ci Thiès la bokk Sud Stade ci Thiès la bokk ñun nag li ñu def nii c'est juste un lancement duñu yem fii bëgg nañ bu ñu defaree mbedd yi ba mu set bale ba mu set désensablé nettoyé ba mu set def suñu reboisement loolu yëpp ci ay projet la bokk parce que tamit fii comme ni ma ko waxee ñun ñoo ko ma defaral suñu bopp le reste nag jeunes yi li ñu ma ko waxee rek proche moo fi ne yéen amuñu seen fay ndaxte lii li tonton wax dëgg euh, wax dëgg la dafa jafe muy am ay jeunes yu ne ci koñ jël seen responsable defar defar seen koñ lu raar la vraiment fierté laa am tey dëkk ak yéen ndax c'était pas évident moo nañ leen woo ngeen ne nañ leen fay wala ñu jox leen dara mais defu leen ko da ngeen wut seen moyen bopp dëkkandoo yëpp ku ci nekk def loo mën ku ci ne tonton Sélé bi mu ñëwee suba moo njëkk a def la mais dugal joxe vraiment muti pour motiver ñu kon nag yéen awma seen fay yéen waa Sud Sade ak fayu jàpp ngeen ci liggéey bi te lii commencement la comme je dis nañu def suñuy projet bañ a xaar kenn ndax lii ñu def nii dal na suñu xel kon bu ñu doole waatee gën a laxasaayu gën a déggoo mën nañ am ay résultats yu positif pour ba non lii incha allah duñu xa année année sori na ane année sori na parce que lii c'est notre cadre de vie suñu cadre de vie nag ñun ñoo ko mën a defar bopp mooy futilim incha allah jël nañu engagement fépp fu ñu gis futilim dinañ ko nettoyé fu ñu gis mu taa dinañ def liñ ci mën naam amuñu les moyens mais am nañu volonté bi kuñ ci accompagner na ñu jël parce que lii ñu def nii acte citoyen rek la ndax ñun ñoo fi nekk ñun ñooy souffrir ci situation bi incha allah duñu xaar année ndax année yàgg na parce que ni ki fa nga ne dafa war a di set kon nag saa suñ ko mënee lépp lu ñu gis lu yàqu dinañ ci jéem a defar lépp lu ñu gis muy muy dëng-dëng ci koñ bi dinañ ci luñ ci mën dinañ ko ci def suñu mën leen nag dinañ ko woo ñi ko war a def ñu def ko bu ñu defee xayro bu ñu def lu def lañ ci mën incha allah. waaw bonjour man maa ngi tudd Prosper Mendy dëkk fii ci quartier Sud Stade Lat Dior voilà tey ñu ngi doon def euh, benn service euh, communautaire mooy set setal suñu boulevard bi di ci bokk tamit ak waa fayu boo seetloo boulevard bi comme ni ñu ko waxee sànq bon si suñu gox la nekk donc yoon la aussi ñun ñu daal di jóg daal ci xar suñ tànk tubéy defar ko raison pour laquelle ñu en tant que jeunesse tamit ñu jóg tey ñëpp mobilisé wu que ce soit ñu fi ñu ñuy romb fii wala ñu fi dëkk wala ñu ne à côté ñëpp vraiment ñëw neen te lu ñu ci gën a neex mooy mobili euh, mobilisation bu fi am tey vraiment ñun mosuñu ko am te tamit euh, fraternité bu ma gis fii ak euh, communion bu ñu def nii tey ànd ak ñëpp liggéey ko je pense que loolu ci quelque chose à bon à vraiment aussi à pérenniser comme ni ñu ko waxee jarul muy yem te rek aussi nekkul fi rek la yem lépp lu ñu gis ni dañ ci war a jóg pour ko suñu gox bi mën a jëm kanam je pense que jeunes yi pare nañ pour pour daal koy doxal. voilà donc loolu laa ne naa remercier jeunesse bi yëpp ñi sama ginnaaw di leen li ne gàcce ngalaama te tamit aussi tey vraiment wanewaat nañ suñ démonstration de force wane nañ tey jeunesse bi tey taxaw nañ juboo nañ déggoo nañ nekk nañ benn mooy dialogue islamo-chrétien bi ñuy wax rek man mi di wax chrétien la ñoom ay musulman leen mais tey doo ko mën a sentir fii ci koñ bi parce que ñun ñëppay demalante ñun ñëppay toog di waxtaan donc y'a la paix l'entente loolu léegi ñaan yàlla ñu gën cee sax rek yàlla jubalañu ñu gën a mën a taxaw pour jàppale suñu koñ defar ko merci beaucoup